فلا تقيس ابن عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها سن مارو بالفضلاء كب يخفيها سن يلمك فلا تقيس ابن عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها سن مارا إن رسول الله إن الكواكب يخفيها المك للمصطفى خير خلق الله منزلة لو وجهها نحوها كل الورى حرا منزلة نوى كل الورى المكرام الورى نيل فدل المسور حين لوى والفضل عند الرسول لله خرار مشرعين الله والفضل عند رسول الله خرار المكرم الورى نيل فدلين مجرحين الله والفضل عند الرسول الله قرر نيل فدلين الله والفضل عند رسول الله قرر الصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mbokk jullit yi mbokk taalibe yi gannaaw bañ leen nuyoo bu ngeen déggee nag njàng mu tedd moomu seen xel yëpp war naa maase nag ànd tabbi ci waa kër maam borom Touba waaye mbokk yi kenn ca waa kër googu ñu koy wax nag Serigne Ndiassé Ndiaye nga xam ne à travers le monde entier amul fenn foo xam ne ci àdduna taxawu fa rek yëkkati xasiday maam borom Touba yooyu waaye nag mbokk yi bu leen fàtte ne aw yoon boo ci amee doom baa nga am ca rakk rek lu bari wàcc la. ba loolooy sabab nag kii toog sama ginnaaw gën gën koo xam ci sëñ Modou Diop Ndiaye xasida nga xam ne ah ceeskaay gii mu ne muy jàngu bi di kilifa diine yi ak kilifa aada yi amul kenn koo xamante si ni sëñ Modou Diop jomm na laa defal teraanga ji nga xam moom la ko yàlla sa jagleel loo xewle muy jàmm loo xew le muy tudd loo xew le muy sababu lépp lu mën a xew ci xew-xewu jamono rek sëñ Modou Diop taxaw na fa yëkkati la kàddu yi am solo looloo waral nag muy woote bis bu mag muy le 13 mars bis bobu nian neena len de ko def ci ndigal ndax fa mu jokk won muy serigne mbacke Soxna Lo Mor jandama Samba Gàdd ndaag ndaag ak maram xarem buyo ka nga xamanteni ni boko tuddé dem kadior boko tuddé dem Jolof boko tuddé dem fa nga xam moy Bawal di donay mam borom Touba fofu la jokk won nak niko alamtu nafsi mu joxon ko ndigal muy def sant mam borom Touba at mu jot jambar joju nga xamni nak ah mom la jokk won nak jox lepp adunaam ak lepp alakhiram joxon ko ndigal ni ko Modou at mu jot nag daal taxawal sant maam borom Touba waaye mbokk yi ren nag mu yam ak way juróom wu jigéen wa soxna nday bay njaase jiitu ji àllaaxira nag jaam ñi mu jóob ne na ko rafaatale bis bi nag di ko ci defalaale ñaan di ko ci sargalaale di ci feeñalaal liggéeyam ba nga xam moom la nekk woon fii ci daaru Dunja waaye mbokk yi duma guddal bis baa nga doon le 13 mars fii ci fi nga xamante si nii mooy pencu maam Cheikh Ibrahima Fall boo fa taxawee gis baas ba damay jox nag sëriñ Naar Fall géwal mi nga xam ne ku gis sëñ mu jóob gis ko ca wetam mu joxal kàddu yi Naar Fall bismillah alhamdulillahi alladi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayyiduna muhammadin wal ali wa sahbi sawin wali wali mbokk yi jërë ngeen jëf ci kaddu yu am solo yooyu sekk ndaanan bàyyee ci li nga xamante ne fi tax a daje muy bis bo xamanteni bi yakarna ni mo delusi ban bis la moy bisub serigne mudjom Diop khassayit borom njariñ li nga ya bi yag nako wote ren depp fukki at ak juroom ñaar ci ndigalal serigne Mbacke Soxna Lo waye ren mu jëlee ndigal ci serigne Moustapha Ndiagne nga xamanteni bi moy wasilam ak ki nga xamanteni ni soxna Astou Fatma nga xamne bis bi ren ji mom la duppee bis bi moy soxna Fatma waye bis bi nak limu lambo dafa bari ndax bis bi limu lambo bokku na ci way juróom mi nga xamante ne mooy soxna Ndeye Mbaye Ndiasse dafa ba génn àdduna nga xamante ni bii mudd kenn ku ne xam na ni njalbeenu bis bi Serigne saa Ndiagne moo ko daan jox ci ndigal sëñ Mbàkke soxna Lo waaye bi way juróom génnee àdduna le douze mars ñu xëy ko yóbbu Touba le 13 mars mu ne daal bis ba ma daan def dama koy indi boole ko sama ñaanu waajur gii mooy sababu le 13 mars bi su ñu nee la 13 mars nag xel yëpp dinañ dem ci daara yi alquran yi ngeen kenn ku ne xam na ne Serigne Modou Diop Ndiaye dafa lëkkale boppam ak jàngu alquran ak xasaayit ci ndigalal xasaayit yeeg alquran yi dañ ci tudd Serigne Boubacar Diop nga xamante ne bi daara ju mag la yor ca Madina Fall mooy taxee wàllu alquran wi kañ la koy door ginnaaw 8 heures la ñuy tàmbali jàngub alquran su ñu demee ba nga xamante ni bii tisbaar jot na ñu julli ba noppi xewlu su ñu demee ba takkusaan ñu génn def cérémonie officielle bi waaye nag kenn ku ne xam na ni Serigne Modou Diop léppam da koo jox umma islam bi doxul ci ma tarixa ci masarian lay dox Serigne Diop kenn ku ne xam ne ne ku soob dina la dëbbale ci wàll wi ko yàlla féetale muy tagg yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ni maa ngi woo képp koo xamante ni bii daanaa ñëw ci di la béggal ci xasaayiti Serigne Touba yi maa ngi lay woo ci bis ba bu ñu tuddee Madina Fall dinañ fa tudd ay boo demee kuréel làmp ci njiital Serigne Amdi Touba Ndiaye boo demee daayira Maam Jaara ci njiital soxna ki nga xamante ne bii mooy soxna Aminta Nger nga ñëw tasawudu sixaar ci njiital sunu baay du Xoll nga ñëw tasawudu subbaan ci njiital Serigne Boubacar Diop ak ñi nga xamante ni bii mooy waa kër Serigne Cheikh Ngunda Fall Ngunda saa bii nga xamante ni bii lépp Serigne Modou Serigne Maam Saliou Fall la ñu ngi koy woo di soññaat Serigne sëpp ci nga xamante ni bii kenn ku ne xam na ni wala porte parole communication Serigne mu Diop Ndiaye kenn mënu ko ci kon daal mbir mi àngoog ñu ngi koy fàttali ñëpp di woo nag tàggkatu yonent bi yëpp comme nañu ko daan defee ak fan ko daan defee ca nañ ko daan defee rek bis bi amul soppeeku nañ ko daan defee noonu rek lañ ko daan la ñu koy defee fan ko daan defee it fa lañ koy defee muy pencum maam Cheikh Rafal ma sëriñ Modou na mi ngi woo baax wëllëreem sëriñ maam Cheikh Fall moom sëriñ Modou Ablaye Fall moom sëriñ Ablaye moom Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin di woo mboolem buntu kër yi nga xamante ne bii ay sang lañ sant Fall te wër pencu mi sëriñ mu Jóob Njaay nee na mi ngi leen di woo di woo sëriñ daara yi waaye nee na mi ngi woo baax ki nga xamante ne mooy wëllëreew boppam sëriñ Fallu Njaay alquran ca daara yi Kawsara Fall sëriñ mu Jóob Njaay nee na mi ngi koy woo di woo Serigne Fallou Lo imam mu Serigne Modou Diop nee na mi ngi koy woo waaye mi ngi woo bu baax Serigne Fallou Fall asalmati baal Serigne Modou Diop nee na mi ngi koy woo Serigne si Cissé ca Jaxaaw ak mbooleem umma islam bi Serigne Modou Diop a ngi leen di woo ci bis boobu dañuy bañ a guddal ndax woote bi kat ku dégg kat yoote bii nag jàppal ni mooy sa kat invitation nga xamante ni bii bés bi daa dëpp ak ñaar sant Serigne Touba Khadim Rasoul ak li nga xamante ni bii mooy ñaanal way juróom wu jigéen way juróom nag yomb naa ñaanal ndax kat borom këram alaaj Njaasa Njaay moo taxaw ci digg tant ba dëgg daaw ak at yëpp di ko seereel ànd gamu ànde woon ak moom ak melowam ànde woon ak moom ba laq ngërëmam ban di ko dàkkantale soxna Ndeye Mbaye Njaase loolu nag garaat la boo juree doom muy tagg yonent bi ba wooteel la bis la yonent bi waxoon loolu am na ndax doom nda ju nekk lay sa yéene mooy boo faatoo bàyyi njaboot gu lay ñaanal kon soxna si yal na ko yàlla dolli leer te ñu ci barkeem lépp lu ñu fa ñaan yal na ko yàlla nangu ñu ngi leen di jox rendez-vous 13 mars ca Madina Fall wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf sëriñ ñaar ci woote bu am solo boobu nga xam ni ku ko dégg xam ne matale nga kon dañuy jëbbal kàddu gi sëriñ Xaadim Mbóoj mu woote nag ci tur nabiyen yi waaye woote tamit ci tur kilifa yëpp rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani xaw qawli bokki julli di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñi ngi nuyu mbooleem ñi ni seetaan góor jigéen mag ak ndaw bàyyiwun kenn su ngeen déggee kàddu yooyu daanu ngeen xam ni bisub lislaam ñëwati na muy bis bi nga xam ni sëriñ mu joom njaay xasaa it da cee boole ñaar muy sant ak ñaan te xam ngeen ni ñaar yooyu benn bu ne ndigal la loo xam ni jóge na ci borom bi subhaanahu wa taala bis bi bisub cant la te bu nu demee ci alxuraan sunu borom moo ni la in zakartum la la lakum kon ku sant yàlla nee na ma dolli la moo tax sëñ mu joom jaay at mu ne mu sant Serigne Touba cant gi nag ànd ñaan kan lay ñaanal way juróom wu tedd wa sunu yaay ju baax ja yàlla na ko yàlla xaare àjjana muy sunu yaay soxna nday Mbay Njaase te xam ngeen ni sunu borom moo ni adduuni asta lakum ñaan leen ma ma may leen bis boobu nag sëñ mu jóob di ko def mu doon le 13 mars mu ci woo kilifa diina yépp tàmbalee ko nag ci ki nga xam ni moo fi nekkal seexul xaddiim fii ci Thiès muy sëriñ Saliou Touré ak waa këram mu ngi ko ci woo bu baax a baax di ci woo bu baax it ah soppeem xaritam di jàmbaar ja sëriñ Daawda Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Mourtada jàmbaar ja sëñ Moodu nee na mi ngi ko ci woo bu baax a baax di ci woo sëriñ Asan Kan Nasru moom it ñu ngi koy woo ci bis bi di ci woo sëriñ Cheikh Ndiaye Daabaay ak Cheikh Mouhamadul Basir kilifa ga woo waa Daabaay yëpp woo dugg kër ma Allaaji tamit woo mbooleem waa kër ma Allaaji jiital ci kilifa ga sëñ Muniiru Njëgeen ak rakkam yëpp ñu ngi leen ci woo waaye bis boobit sëñ Moodu nee na mi ngi ci woo waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Moussa Fall ci kaw Sara Fall mi ngi koy woo di woo bu baax a baax sëñ am di Fall moom sëñ Moodu Aminta ak mboolem kilifa diine yi nekke ci dëkk bi ñun tudd ak ñun tuddul ñëpp sëñ mu joom nee na mi ngi leen ci woo waaye nag di ci woo xaritam soppeem sëriñam magam sëriñ xaadim loo gaydel jàmbaar ji sëñ Moodu nee na mi ngi ko ci woo ci bis bi waaye di ci woo xaritamit taalibe sëñ xaadim loo bu baax boobu sëriñ Mamour loo ñoom ñëpp ñu ngi leen ci woo bépp kilifa diine bu nekk ci dëkk bi Modou Ngom la ci woo di ci woo nag jànkatu xasaay di di ci jiital daayira mooy bu naafix di ci woo sunu baay sëriñ Jaga Juuf mi nga xam ne mooy jëwriñu daayira mooy bu di sàkku ah képp kuy jànkatu xasaay rek Modou Ngom la ci woo nabiyen yëpp mi ngi leen ci woo tiijaan murit xaadar laayeen képp kuy wax asadu an laa ilaha illallah day tey tagg yonent bi moo doon lay woo ci bis bi kon bis baa ngoog la 13 mars lay doon ni ko sëñ naar waxe ku dégg kàddu gi xamal ni mooy sa carte invitation sëñ Modou nag ku soob dëble ne la kon nag ñi ngi sàkku ñëpp teew ci wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ xaadim kàddu yi gàtt la matale na dañuy jox nag jigen ju bëri jom jigen ju man gor nga xamni at mu jot mo ci and ak Modou nak ci woote bi muy soxna ak ciun mu fasiyene yéene nak ci turu jigen ñepp ñu wara tew ci bisba soxna mbay ak Mbayang bismillah aousubillahi mina sheytaani rajim bismillahir rahmanir rahim alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh gannaaw banu sante yalla julli ci geeru geer ñi ñuy sante sunu ñaari wajur ñoo ngi nuyu monto entier ñepp du nuyu Sénégal rawatina waa Thiès Thiès gi ñu dëkk tubaar fakkal la yaroo fi nekk ñoom bis bi daan woote egsiwaat na muy le 13 mars bi nga xam ni moom la mujj njaay di def at mu jot ñëw méngoo ak ñaanu soxna Ndey Mbay ku gis sama jëmm ji nag xam ki ma toogal ndax tubaar fakkal la fii ma toog ñi fi waroon a toog bari na dégg mbay waroon na fee mën a toog. Mariam la moom na place bi tubaar fakàlla seen sàmb moom na ko jëmb sax bu ñëwee toog Aminta Samb ca Ndakaaru bu paasoon dikk kon ñi moom place bi bari na ñoo ñëpp nag ñëwuñu man la jox seen kàddu ma toogal leen tubaar fakàlla di leen woon ak yéen ñëpp ni leen waxal naa leen seen kàddu mottali gi mooy le 13 mars le 13 mars nag nan ko daan defe la waa Médina Fall bis baa seen yëf la na ngeen ca daan jàppee ba mu réussir na gën a réussir tubaar fakal la daan na réussir ba ñëpp kontaan kër maam Caba Ndiaye kër Ayda Ñang kër mère Mbaaya tubaar fakal la kër ñoom fase kasa yéen ba mbee yéen yéen ñëpp génn leen ñoom day Xadi Faal kër sëñ Cheikh Ngunda kër sañ Siidi kër sëñ Cheikhouna kër sëñ Cheikh Fall ñi ñu ngi leen woo yéen ñëpp pencum Cheikh Ibra ba kër Pape Fallou Lo yéen a moom bis bi soppee daayira sëñ Fallou soppee sëñ Fallou daayira soppey maam jaara bis baa ngoogu le 13 mars Medina Fall Kawsara taaxi kaw kër Seyib kër Issa Mbambara muusante Touba Thiès ñëpp lan woo bis baa ngoogu na gën a réussir wasalaam génn leen. jërëjëf soxna mbayaŋ ci kàddu yu am solo yi nga yëkkati waaye damay faral di wax ni ku jur doom deewoo te li ci kaas bi bu la doyee rek doyul ngay xooli ci barada bi bu nekkuy sa way jur bu góor. xel yëpp tabbi ci Serigne Ndiassé soxna nday Mbaye Ndiassé mi nga xam nak, moy mooy këfaale kàddu rek ci Modou wowal ko soppeem ba nga xam lu mu mës a xewle këram moo ca man muy soxna Seynabou Doucouré mu bax mi di wo rakam ju bax ji nga xam moko ko fi ci Thiès muy soxna Awa Doucouré soxna sëñ Modou mi tok moy doomi nak soxna nday Mbaye ma nga xamante si nii moo nek ci sen bisyo ya, daw len ko taawal ba mu jakk 13 nak la doomu sargal ñaanal le 13 mars mbokk yi woo kilifa diine à travers le monde entier les autorités yi nga plus particulièrement lu ngeen xew gis ngeen Modou seen ginnaaw di ci rek monsieur le Lamine Diallo mi nga zone nord bi ñu kon a baax la ca des nag xam ni baag nag lu mu indi ndox indi ndox bàyyi la ca teen ba moo ngi koy mu fas yéene woo soppe yi nga xam ne moom la daan fasanteel kóllëre bu noppee ñu yëkkati jotaay bi jërë ngeen jëf billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwata illa billahi aliyil azim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ni déglu dinu seetaan ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax di ñaan yàlla sunu kàddu gi képp koo xamante ni rek jàkkaarloo nga ak ñun yàlla na la fekk ci jàmm ci darajey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam naa ne kàddu yi lu tënku lañ ci mottali rek ndax liñ ci waroon wax lépp ah, sunu wëllëre yi sunu xarit yeeg sunu jigéen yi mottali nañ ko wax ko waaye ñuy xamal ni rek ni leen bis bi daal noonu nu ko waxee noonu la demee fa tabaarakallaahu muy bis boo xamante ni 2003 bi nu demee Taïf ànd ak sunu wéjur Serigne Mbacke soxna loo jox nu ci ndigal ñu di ko doxal ba léegi yàlla dogal ginnaaw bi mu fi jógee dem aljanna jiitunu ak sunu wéjur wu jigéen. ñu fas yéene boole bis bi cant ndigalul cant googu ak ñaan gi di ko def muy benn bis la 13 mars ñu ci woo ñëpp sëriñ Xaadim Mbodj fa tabaarakallaahu ak sëriñ Naar mu nga xamante ni fa tabaarakallaahu yëkkati na kàddum léegi di sëriñ Naar Fall di borom baax ak sëriñ sekk Ndaanaan ñoom ñëpp woote soxna Mbayang Cuun woote googu ñu woote ba ci njàngum Seex Gay mi lépp rafet na waaye sëriñ Daawda Mbàkke moom dul Mamadul Murtada di kenn ci ñun Xaadim tudd na ko day sunu sëriñ waaye yàlla dogal nag muy sunu wëllëre jaxasoo ak ñun lool du tàggook ñun benn yoon lu nu gëj a gise gëj a gise itam du tee ñu jokkoo téléphone ñu ngi koy woo ci bis bi ak mbooleem njabootu seexul xaddim gi yëpp sëriñ Tàkko Mbàkke di magam moom seex Muhammadul Murtada nekk fii ci kër ma daaro ñu ngi ko ci woo moom itam di ko ñaanal yàlla sama borom bàyyi ko fi ginnaaw loolu it ñu ciy woo sëriñ Modou Seexuna di sunu xarit di sunu wëllëre sëriñ Modou Seexuna moom sëriñ Seexuna moom sëriñ Modou Awa Balla moom maam Cerno waaye sëriñ Jili Mbàkke moom alaaji maam Cerno moom itam moom sëriñ Modou Awa Balla ñu ngi ko ci woo di ci woo itam sëriñ Mourtala Mbacke moom sëriñ Cheikh moom sëriñ Modou Fati Xari ñu ngi ko ci woo di ci woo mboolem jabatug lislaam gi bàyyiwunu kenn suñu wëllëre yooyu nga xamante ni di ci woo sëriñ Baara moom sëriñ Mamor moom sëriñ Fallu di doo doomi sëriñ Mamor moom sëriñ Fallu moom itam di sunu xarit sëriñ Baaro Baaram Mbacke moom sëriñ Mamor ñu ngi ko ci woo sëriñ Cheikh Abdou ñu gën koo xam sëriñ Cheikh Abdou Mbacké moom sëriñ soxna ummi Touba moom sëriñ Fallu yàlla dogal muy sunu xarit di sunu wëllëre nekk ca Ndakaaru bàyyi woonu kenn sëriñ Cheikh Mbacké parkin bàyyi woonu ko moom sëriñ Moustapha Mbacké moom sëriñ sëñ samba ñu ngi ko ci woo di ci woo njabootu Serigne Touba gi yëpp di ci woo it Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Moustapha Imam di kenn ci ñun soxna Umu Xayri moom Serigne Modou Kara Mbacke nooree nii di soxnaam ñu ngi ko ci woo moom itam bàyyi wunu fenn nag waaye nag bu nu tuddee Serigne Modou Kara xel yëpp dana dem Thiès ci njabootu gi fi ne waaye Serigne Moustapha Fall mi nga xam mooy jëwriñ ji nga xamante ni ñoo nekk fii ci rond-point Ngent ñu ngi ko it si kilifa yooyu nga xamante ni ñoom la ñu dara jaale bis bi ca la bokk waaye Alxaaji Pape Doumbia mi nga xam moom la ñu bokkal prestige bàyyiwuñ ko ci woote bi nga xamante ni moom bokk na ci ñi jiital ci bis bi ak ay soxnaam waaye nag ak mboolem ñi nga xamante ni ñoom ñoom la bokkal barab bii nekk Prestige TV gay teraanga di suñu wëllëre di suñu xarit bàyyiwunu kenn ñu ngi ci woo mboolem koo xamante ni rek ab jullit nga te nekk ci dëkk bi bàyyiwunu kenn fa tabarakallahu alxaaji Serif ja di doomi alxaaji Cerno Abu Dia ñu ngi ko ci woo ak magam alxaaji Ibrahima Dia ak mboolem njabootuk alxaaji Cerno Abu Dia gépp bàyyi wunu kenn ñu ngi ci woo ñëpp di ci woo nag njabootuk sunu maam alxaaji mataar Mbay nga xamante ni ñoom ñooy bis bi bis bee ñoom ndax soxna Ndey Mbay Njaase mi ngi ciy ñaanal ñoo bokk lépp bokk alxaaji Matar bokk lépp kon bu yàlla dogalee tey ñu toog fii dinañ leen ci jiital ñu nga xamante ni suñuy nijaay lañu di ñaan yàlla bis bi yàlla nañ ci yegg ak jàmm soxna Astu Gaynde Fatma mi nga xamante ni moom la ñu jël bis bépp dara jaale ko mara nekk ko di doomi Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ginnaaw bi nu amee ndigalu Serigne Mbacke soxna loo magam ja bis bi moom lépp moom lañ ko dara jaale jox ko ko muy bisam kon soxna asum ñu ngi ko ci woo ak mboolem doomi soxna yëpp soxna sëy na bu njegéen waaye bàyyiwunu autorités yi moom duñ ci nekk di lim suñuy nit lañu ñu xam leen ñu xam nu yàlla dogal na ñu ngi ci woo ñëpp bàyyiwunu kenn buñ ci tuddee DG Maodo Malick Mbaye mi nga xam yàlla boole nañu ak moom ak Ablaye Dieye mi nga xamante ni kenn la ci ñun dafay mel ni ñoom ñëpp waaye Mouhamed Ndiaye mi nga xamante ni doomi Alaaji Mor Jaxeer la ak ay magam ak mboolem njabatuk alaaji moor Jaxeer ji tàmbalee ko ca Moussa Ndiaye ba ci Moustapha Ndiaye ba ci Cheikh Tidiane mi nga xamante ni seen rakk la ak ki nga xamante ni mooy maam Abdoul Aziz Sy mi ñu tuddee maam Abdoul Aziz si da baax ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ca bis bi bàyyi wunu kenn bàyyi wunu fenn bis baa ngi noonu ren daal programme bi bu nu xëyee danañu jàng alquranul karim li mu alquran bi nag fas yéene nu jàng fukki kaamil ak ñett muy treize yoo xamante ni day dëppoo bis bi di le treize mars buñ ca jógee it mboolem ahlu xasaay di fa seen ni ñu durus ci xaside yi jàng salaatu ala nabi lim buñ ci man danañ ko jàng daara Serigne Bara Cissé moom Serigne Juga ñooy jiite njàng ma ak daara Serigne Fallou Looy imam ak Serigne Fallou Ndiaye alquran Serigne Boubacar jóob ak imam mut si mi nga xamante ni moom moo Modou si nekk ci kër maam alxaaji ñu ngi ko ci woo moom itam sasoo na ci ñetti kaamil ne dinaa ko tàmbalee kon daal bis maa ngi noonu bàyyiwunu fenn bàyyiwunu kenn Serigne Cheikh Ngounda Fall mi nga xam moo fi nekkal njabootu Cheikh Ibra gi di sunu buntu ak Serigne Mbacke Fall moom Cheikh Modou ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo di ñaan yàlla daal ñëpp nañu wuy si mënunoo lim ñëpp waaye ku déggul sa tur ci communiqué bi rek jàppal ni wax dëgg yàlla du fàtte temps bi moo ko mayewut waaye dinañ dox ku ci nekk ba sa kër indil la saw kàtt fu séenee saafante ak yow ndax le mars bis la boo xamante bis la bu nu ñor bàyyiwunu kenn bàyyiwunu fenn kon bu ko defee rek ñu yamale foofu sunu kaddu di naan yàlla yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin wa aleykum wa taala wa barakatuhu تنهند سارا سارا حمدي وشكر لمن كل بي سارا لوري دن دون سو دون صباح تنهند سارا سارا لو سنائي ورد وان بلا صغة مسقاد لي من بنا دايما انصارا لله لله لله كل لدى أبار مكرمة من هرسلنا وفيها جم من سارا إن الذين إلى سرسار خر خصدو سرسار خر خصدوا سيارة فارخو دارين أو سارا سيارة فارخو فارخو فارخو داريني أوزارا